Euh, discours président de la république man dama jàpp ni bi mu faloo ba léegi bokk na ci discours yi nga xamante ne nii gis naa ci sama bopp ci discours bu mas def nag parce que mesuré na vraiment dëgg situation dëkk bi situation adduna bi mu jël ay ndogal te comme moom la ñu dénk suñuy destin mu jël ndogal yoo xamante ne nii nag ñëw na ci heure am Euh, comme que coronavirus mu ngi ci dëkk bi te jógee gu fi nekk ci àdduna te jógee gu fi jàpp naa ni lii rek la mënoon def parce que mënuñu jël suñu bakkan ak suñu life yëpp jox ko coronavirus jël suñu économie jox ko coronavirus bu boobaa dëkk bi day nekk ci problème mu jël ci ay dogal yu mag nag léegi sénégalais yi aussi ñoo war a jël seen ay responsabilité aussi respecter li nga xamante ne ni moom la autorité sanitaire yi wax xeexandoo ko. communauté bi jàpp ci pour mbas mi mën a jóge ci réew mi jóge ci àdduna beneen bi ci topp euh, mesures yi mu jël man bi ma ci gën a intéressé mooy le côté de la diaspora bon du ma wax sax le côté de la diaspora mais côté tourisme parce que Sénégal ñëpp xam nañ ni tourisme dafa am doole bi ñu tëjee suñu frontières yi ba léegi tourisme bi dafa sooxe ñun ñi nga xamante ni nii ñun la ñuy tuddee le quinzième raison boobu ba léegi dañu am ay jafe-jafe mën naa jël exemple sama bob parce que depuis six mois maa ngi ci dëkk bi coronavirus moom fi téye xëy na du coobare état bi mais moom fi bob boobu ba léegi dew ma dikku ma à partir du 15 juillet avec les certes barrières yoo xam dañ koy jël ay kiiwu sanitaire danañ ubbiwaat aéroport yi loolu dañuy applaudir parce que vraiment Sénégal. Euh... étranger yi moodu moodu yi dafa am lu ñuy contribuer ci dëkk bi bu ñu demee ba tënku mënuñoo dem mënuñoo dikk day am lu day def impact ci économie bi kon loolu lu ah, am solo la. couvre bi aussi am na solo parce que wax na démb dindi bi am na solo wax na démb ci biir waxamu ne dem nañ ba tënku si entre suñu lien familial yi kon loolu yëpp lu ñuy saluer la li ci des daal mooy ñun sénégalais yi actuellement ñoo war a jël suñu ay responsabilités respecter mesures barrières yi bàyyi déplacement. yu nga xam amul solo rassemblement yi nga xam amul solo te jéem a xeex Sénégal ñun ñoo ko économie bi il faut mu dox comme ni ko yëpp defee. bëri woon na ñoo xam ils avaient un peu anticipé sur loolu sax xalaat ne peut-être président bu génnee dina libérer ñi comme ni koy waxee parce que affaire bi metti woon na trop trop ci population bi c'était un stress terrible parce que bëri na ñoo xamante ay néew di doole lañ lu am ak lu ñuy au jour le jour lañ koy am. Nous euh, empêcher à que nous normalement donc euh, day y problème a pour quoi donc euh, c'est bien que nous def ko couteau à double tranchant pourquoi à double tranchant Parce que nous côté population et mais côté aussi il faut que population bi dem doxi soxlaam mën dund lepp lo xam ne war nañ ko meuna dund pour meuna yobou seni njabot régler seni dépenses ak parce que Sénégal so xolé 80% de la population ils vivent au jour le jour c'est des gens yo xamante ni amuñu salaire donc ils vivent si ay bana bana si ay jayantou si ay business si ay taxi si ay clando genre affaire damé nonou quoi donc c'est important ben instant que ñu libérer ñooñu ñu meuna aussi am luñu dundé quoi. même buñ ko dindé tamit ñu Sénégalais buñ bayé bàyyee ko rek. nañ respecté mesures yi fi nekkoon yooyu yëpp ñu gën a fagaru suñu bopp parce que feebar mu ngi fi ba léegi waaw ñu gën a bàyyi xel am vigilance loolu daal laa si kii parce que tamit nit ki mënoo ko tëj durant quatre mois xëyu liggéeyu defu dara day métti tamit bu yàggee mooy loolu mu neen def leneen loo xam ne bokk si waaw même bu dee président dina na ko tamit nañ gën a fagaru tamit bàyyi suñu xel rek. waaw couvre-feu moom baax na parce que ñun suñu liggéey yëpp guddi lu mooy gën a kii quoi bu nekk lañ lay woo heure bu nekk lañ lay ara mu ngi door a arrangé quoi waaw heure bu ñu wàññi moom arrangé nañu moom waaw. maanaam euh, est-ce que jotoon na président ak feebar bi ni ñu constaté que mi ngi yokk chaque jour dee yi di gën a yokk est-ce que jotoon na que mesures yi ñu jëloon ñu ñu daal di koy teggi. non non jot waruñu koon teggi quoi mais frontière daal bu ñu ko tëjee daal nañ bàyyi frontière noonu heure bi ñu kon heure bi nii nu mu ko dindee nii baax na quoi waaw mooy frontière moom bu ñu ko tëjee nañ ko bàyyi noonu waaw. voilà xam nga lolu man depuis depuis le début dama ko wax communication bi mo baxul ñom seen communication bi ñu commencé seen communication dafa fauché parce que damay wax dem maa ngi dégg dem président mu koy wax ci biir message am man wax naa ko depuis ay 3 mois ci ginnaaw feebar bi waruñu ko wona def feebaru gatché feebar boko gatché gàcceelee rek nit ñi dañuy am problème sénégalais mo neexul organiser mo neexul organiser mais lan moo tax loolu am. mooy dañu tëb rek ñëpp ni coronavirus coronavirus niñ ci demee mooy dañu communiquer communication baaxul ministre bi dafa génne ni ku gëmul coronavirus rek dañ lay porter plainte foofu dafa juum parce que euh, Sénégal ni ñu ni ñu bindoo boo indee benn feebar nga ni feebar bi dafa garaaw dafa danger da waxoo population bi ni ni ci war a demee rek da nga indi problème parce que su ma ko amee sama njaboot dañ may daw sama famille dañ may daw du ma bëgg loolu yëpp dañ ko waroon dindi dindi gàcceel bi deuxièmement ñu dugal ci Sénégal kenn ku nekk dañu xam dañu am ay kilifa diine ñi nga xamante ne nii ñoo ŋànk réew mi tey li la sa li la li sëriñ di wax nga dëgg ko jëfe ko bokkul ak li la ministre bi di wax nga jëfe ko dégg ko mënul bokk kon ñooñu dañ leen cee waroon a teel a dugal associé leen ci bu baax a baax chef de quartier Euh, porteur de voix yi ñu sensibiliser doom adamay sensibiliser nit ñi pour nit ñi mëna xamni li lu lu nekk réalité la nekk ci aduna bi kenn ku nekk yaay sam sa bop yaay sam sa famille yaay sam sa morom dès le début dal man dama japp ni euh, communication bi mo baaxuloon lo tax tay ñu egg fi ñu egg. mi ngi fi ka ñu dund mi ngi fi ka ñu bañ dund mi ngi fi état d'urgence bi nekk fi mi ngi fi su fi nekkul aussi mi ngi fi donc benn instant il faut apprendre à vivre avec naka moi que ni respecter les gestes barrières di takk masque di raxasu di moytonte distance mais malgré tout aussi il faut ñu lekk foog ñu naan donc euh, mënuñu ñun ñëpp toog suñu kër te duñu lekk duñu naan mënul nek. il faut nit ñi génn outil lu ñu dundalee seen i njaboot loolu mënta ñàkk.

waaw respecté wuñ distance yooyu te loolu du yoon loolu tamit même président bu ko defee tamit dafa métti baaxul si Sénégal pendant quatre mois loo xamante ne dara demu dara ñëwut baaxul si Sénégal bu yàggee askan bi mooy sonn te Afrique amu développement boo xamante ne mun nañ demal seen bopp lépp dañ koy jéggaani kon président bu demee ba def loolu am na fu mu ko teg moo tax mu def ko waaw ñun daal nañ gën a bàyyi xel daal fagaru fagaru bi daal si ñun la nekk ñun doomi aadama yi waaw non gars yi moom dañoo bàyyeeku moom bàyyi commencé nañ bàyyeeku nice waaw man sama so comme man ñu ma ñu ma gisoon gars yi si tege jëlee ay matuwaay ak léegi nii par rapport ak léegi quoi waaw léegi gars yi moom moom bàyyitu si xel quoi lu bari. ñu gis ne population bi am na ñu bëri ñoo xamante ne sax faf dañoo gëmoon ndax feebar bi am na yow loolu ci sax. loolu xuloon naa si ba sonn xuloon naa si ay nit ba sonn feebar dafa am de am na de waaw.

Euh, Seigne, yow personnellement est-ce que décision chef de l'État a un impact si yow lan la def ci yow lever couvre-feu bi ak euh, mesure d'urgence bon amul impact bu extraordinaire sur man hein, à part que c'est a tëdd la indi woon ci man hmm? parce que 23 heures lu mu dee dee daan na ma peut-être que changement bu ci am mooy que ni heure bi lañ n'y hein, a mais amul changement bu parce que takk masque yi ba léegi mi ngi fi raxasu bi ba mi ngi fi dendante bi ba léegi mi ngi fi heure bi rek moo yokku maanaam 23 heures bu amoon moo moo amatul sinon y' a pas grand changement bu si am quoi loolu la quoi. waaw ah, ñu ngi ko kon début bi rek ko doon dundee ba rek waaw ah, ñu ngi sant yàlla boobu ba léegi yàlla sutural waaw suñ liggéey bi benn côté xaw na sooxe mais tamit la loo xam ne suñ la nous président yooyu lu la waaw kon dañ koy sant yàlla rek gën a bàyyi xel rek yàlla baax na waaw wax. waaw xam nga man nag dama sama état d'urgence bi amatul sans raison d'être président a bien raison wax na dëgg pour dindi ko amut ban njëriñ la amati couvre ban njëriñ la am yi ñoo war a jël seen ay responsabilité état aussi daf leen di accompagner nu mu leen di accompagner mooy levé naa état d'urgence dindi naa couvre-feu ça ne veut pas que lu waay lu neex waay def xam nga civilisé dafa war a jëkk ci yow avant ñu la koy digal dañu war di continuer di takk masque yi. di limiter déplacement yi amul solo di moytu rassemblement yi nga xamné amul solo pour ñu korona coronavirus parce que il est là jógee gu fi loolu moy deug sénégalais bu nek da ngay xol dembu ce discours bi président def nga gis sa bop nga jël sa ay matukay préserver sa wa keur préserver sa famille ak say xarit est-ce que pour pour vous dire que man sam papa il a 85 ans trois mois gisumako ko bokk benn parce que damay jaxaso ak ay nit té bëgguma ko wàll damay euh, wax sama xalé yi ma dëkkal ci kër gi bu len dem ci néegu pa bi loolu yëpp pour sam ko la na sénégalais yëpp def nonu ñi nga xamanteni dañu am yenn fièvre yi ñu sàmm leen ñom tamit man japp na ni loolu rek mo ci mëna a mais état d'urgence yo loolu jeexna loolu mënatul nekk ci réew mi parce que day dem ba day jur leneen dëkk bi doxatul nit ñi sonu nañ tabaski baa ngi ñëw Korité bi ñu génn gis nga ne mu demee kon président lu mu jël daal en tout cas man gis naa ci sama bopp comme tout comme tout bon sénégalais ah wax man je je suis pas avec Macky Sall je suis côté mais gis naa sama bopp ci li nga xamante ni loolu la def ah loolu loolu laa ci mënoon wax vraiment. mais est-ce que dina am yow lu mu changé ci sa liggéey. dina changé sama liggéey parce que damay dem damay à partir du 15 damay dem dellu sama liggéey. parce que man déggoo ma la sama njëlbeen wax je suis en étranger je vis en étranger depuis six mois maa ngi ci dëkk bi état dimbali wu ma état jàppale wu ma bu dañu dañu tëj parce que dañu tëj parce que problème moo am bu ñu tëjee dina changé ci man dara parce que dana dem continuer samay activité loolu kay changé na ci man lu bari dina changé aussi ci sénégalais parce que Sénégal fii secteur informel bi nga xam ne ci la jeunes yi nekk di daan doole bu ñu leen mayee jàmm bàyyi leen ñu liggéey kenn ku nekk di nga mën a yor sa bopp. gis nañ économie bi ni mu chuté mais def tuut ci kanam bu ñu bàyyee nit ñi ñu continuer di doxaat seen activité nit ñi danañ mën danañ mën a yor seen bopp parce que fii xam nañ ni ñuy dundee jàppal ma jàppala la loolu la du am benn problème nit ñi dina dina changer lu bari te d'ici un mois dina changer dëgg la dina metti ji nag Sénégal ci kanam parce que Sénégal yëpp dinañ ko yëg parce que toog nañ plus de quatre mois yoo xamante ne ni dëkk bi doxul dëkk bi doxul vraiment dañ koy wax dëkk bi doxul te li ko waral mooy li xew léegi nag. Euh, mi ngi fi ba léegi nañ ñaan yàlla mu jeex ñu jàpp ci mais nag ñu jéem a relancer suñu économie loolu la ko